wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana tey nag ñu fas yéene koo indi lenn ci ay bayit yoo xam ne sëriñ bi daf koo def jëme ko ci koor ñu tàmbulee ci xasida ak faaza allazina xaafazu mu tàmbule ci bismillahi irrahmani irrahim بشرك الله تبارك وتعالى سوار ناسم هذه الخسيدة وخيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان عام ألسس Sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo di wax ne maa ngi tàmbali xasida gi ci tudd turu yàlla wu sell wi mi borom yërmande ji yaatu ji mi borom yërmande ji nga xam ne daf koo jagleel ñi koy topp yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy aji barkeel tey aji kawe bégale na ña nga xam ne dañu daan siyaare si boroom xasida gi ak ñeneen ñu dul ñoom ci jullit yu góor yi ak yu jigéen yi mboole seen ci weeru koor atum junni ak ñett téeméer ak fanweer ak benn فاز الذين حافظوا على الشيام شهر به أعلق باب للإيام فاز تخنا الذين نغا حافظوا وطنا على شيام شهر كوار ويركور به كويركور ويدي أعلق جلن يتجي baabul iyaami buntub dox jëm ci bàkkaar sëriñ bi di wax ne ñi nga xam ne day woor nañu weeru koor wattu ko weer woowee nga xam ne day ci la suñu borom di tëje buntu bakkaar ñoom day texe nañu yaraw na afdalal futuuri fil xubuur wa fil xiyaamati min al karim yaraw na danañu gis afdalal futuuri ngën ngi ndogu fil xubuuri ci seeni bàmmeel wa fil xiyaamati ak bisub taxawaay ba minal mu'ni jóge ci aji woomal alkarimu ki aji màgg sëriñ bi di wax ne ñi nga xam ne day woor nañu weeru koor danañu gis ngën ngi ndogu ci seeni bàmmeel ak ca bisub taxawaay ba xiiwal yooyu nag nga xam ne dafay jóge ci yàlla mi aji woomal yàlla mi nga xam ne mooy aji màgg wallahu aalam لزائمين والجميع انفدى نكن لدى الفتور واللقاء يا قوم قرتان باتفاق sëriñ bi dana sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal